salaamaaleykum ñoo ngi nuyu ñëpp di leen siyaar di dalal Cheikh Babacar ngi feeñ ah, d'accord waaw salaamaaleykum ñu ngi nuyu mbooloo mi yëpp di nuyu Cheikh Babacar di ko wax dalal jàmm tey bi ma woowee sax ne ma dama ñëw pour indil sama soutien mbër mi daf maa def surprise parce que ñun li ñu xamoon mooy ñooy ñëw ci yow solliciter la suñu problème bis ba jot ñun ñooy ñëw toppaat ci yow pour uniquement nga jox ñu lañ la doon solicité mais moom moo ñuy soññu kat bi jege si na de xam naa ne soxla ngeen kon dinaa fa ñëw waaw loolu nit ku disponible moo ko man ci ay jeunes waaw man geste bu ma saluer la loolu geste noble dëgg la waaw on est de tout fier avec toi waaw nga xam ko muy guddi muy bëccëg waaw parce que responsable bu mel nii dafa yombul responsable bu mel nii moo yombul fii ci surtout Thiès à zone nord surtout koo xamante ni comme na ma leen ko waxee woon rek ñun ñi koy ñëw di ko solliciter xam na ni doolay boppam lay demee waaw te lépp dara waralu ko lu dul liggéeyal le président Omar Sarr waaw kon na nga xam ne carrément ñun lépp lu Omar woote muy guddi muy bëccëg muy taw mbaa muy naaj boo ci nekkee ñu ngi ci waaw boo yéexee sax da ñu ciy fekk ñun waaw loolu moom jàppal ne engagement yooyu moo fi nekk démb te teyit moo fi nekkaat tey waaw encore une fois. maa ngi leen di ziyaare yéen ñëpp di leen jox seen wàccuwaay maa ngi tudd Soxna Mbayang Fall di ziyaar suñ Babacar bu baax suñ Babacar Mbeng sant bi rek moom si xaw a jaaxal. waaye wax dëgg yàlla de ngeen bu dëggoo ni moom moom mosuma koo gis ndax eh, lim ñu digoon yépp mi ngi koy def bàyyi nañu xel bu baax a baax a baax a baax te loolu yombul léegi ci politiciens yi wax rekk def ko wax dëgg yàlla yombul te moom li mu waxoon ak ñun yépp mi ngi ci teggiwu ko benn yoon kon ñu ngi koy sant bu baax di ñaanal weñ gi nag yàlla may ko ndam ci kombaam bi ci doole Cheikh Ibra li mu bëgg moo ko xam yàlla defal ko ko kontaan nañ bu baax a baax a baax maanaam buñ amoon ñaar rek wala ñett yu mel ni sëñ Babacar rek eh, maanaam réew mi dina dox ndax kon ndaw yi diituñu buuseeti di def leen mbaa ñuy taxaw ci leen wala ñuy xalaat leen kon sant nañ leen bu baax a baax a baax jërëjëf. asalaamaaleykum nuyu ñu nekk ci saal bi ñëpp sama rakk sama mag yi di nuyu suñ Babacar Mbengue bu baax a baax ak ak ñi àndal ñëpp di gërëm waa Kawsara fi ma yeewoo maire yeeg ñëpp di gërëm ñëpp boobu ma kenn waa di wax suñ Babacar mii nii amuñu fayam ñun am amuñu fayam ndaxte naa la xamal leen ñun ñi ci làmb ji leen nekk wër na gaa yi may àndal bari na fi ñoo xamante si nii dañ daan ñëw fii nii ñu préparé combat fu nañu ñu dugg fa fu nañu ñu génn fa di am sa ay problème mu sarax kun dem fëgg sa bunt yow da ngay fermer sa bunt doo ñu sax lijjanti ñu nekk ci mbedd yi dañuy war a bëri di tëdd ay minuit une heure du matin te waxi war a bëri ji te naa xamante suñ Babacar mi suñ amoon ñaari mel ni moom fii nii sunu gox bii nii diggante taax kaw Kawsara naa la xamal leen ñu ngi naan arrêté jakarta yi booy sax doonuñu nekk fii nañ di taxawaalu naa la xamal leen béy na booy nekk fii taxawaalu ñàkk lu def wax nga gis mag moo xamante ni magum jëm ay njabootam yaa ma mu ne ci jakartaa yi soo rombe sax da koy ñeewante billaay ñun daal ñuy gërëm baagur bu baax di gërëm ñi mu àndal di gërëm Adama Diallo mii di maa ngi wax daal ci kàttanu yàlla ak mbaaxam li mu bëgg ci place Omar Sarr yàlla na ko am ci kàttanu yàlla billaahi yàlla na ko am bi jaay sina sallallahu alayhi waaw di di wax combat bi ñaan yàlla may ma ndam lu si dugg ñu ñëw Kaolack feete ko yóbbul ko drapeau bi taax kaw waaw di remercier famille yëpp ndaxte li yombul di jégalu ay doomam tamit ndaxte fi mu toll nii bàyyi na léppam ay njabootam famille yëpp daay topp suñu ginnaaw ñun ñi te defaluñ ko dara waaw ñu ngi ñaan liñ bëgg suñu combat yàlla defal ñu ko ci kàttanu yàlla incha allah. bawuma kenn di gërëm ñëpp di gërëm pël baa bu baax premier supporter kooku mënuma kaa bañ a gërëm. di gërëm naa ñëpp boobu boobu ma kenn. salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu téléspectateuru Carrefour Média yi di nuyu waa région de Thiès di nuyu waa Sénégal yëpp ñu ngi sant waa kër Ma Cheikh euh, Fall ñi nga xam ne ñoom lañu fekk si tey fii ci fii ci Kawsara di nuyu écurie bi. écurie de lutte bi nga xam ne tëdd fil bi weñ gi moo nekk ni am combat di 17 bi ñu seet si mu nekk suñu dëkkandoo ñu bokk zone ñu désidé si politique bi nga xam ne moom la ñu euh, président Omar Sarr bu PLD suqali président national bu PLD suqali dicté muy euh, nañuy def proximité ñi nga xam ne dañu dëkk ak ñun nañu fexe ñu am ak ñoom jàmm nañu def suñu kéemtalaay kàttan pour jàppale leen si li ñuy def ci cadre boobu ah si lañu fi ñëwee nii ñu ñëw rek euh, indi suñu soutien ci euh, mbër bi nga xam ne suñu jarbaat la suñu frère la suñu dëkkandoo la suñu rakk suñu soutien nekk nii waaw mu nekk soutien wu euh, PLD xale bi may représenté fii ci région de Thiès. di souhaiter rek victoire waaw nga nga nga am ndam nga indil ñu ndam incha allah lépp nekk jàmm te su ñu amee ndam tamit mu nekk loo xam ne dina la jëkk te yeneen ndam tamit ñëw fekkee ci ndam bi nga xam ne moom la ñuy ñaan euh, samedi bii di ñëw yàlla yàlla yombal lépp waaw ci daraje rasul comme li ñu waxoon rek daañu def suñu kéemtalaay kattan pour jàpp ci mbir yi yàlla baax na daal. waaw ñu ngi ñu ngi sant ñëpp ñu ngi jaajëfal waa écurie yëpp ñu ngi jaajëfal waa Thiès.